allama al insaana wassalaatu wassalaamu ala man bu'itha fi xayri al umam wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqaa wal karam mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd di jiital ci nuyoo bi xalifatul aam li tariqati almuridiya alcheikh muhammadul muntaqa di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mboolem naal yi mu yéene liggéeyal sëriñ Tuuba mu yeggale ko te ànd ko ak nun delsiwaat nan tey di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci atum 1400 43 ci gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tolloog de 19 avril 2022 fii ci barab bu tedd bi di jumaa ju mag ji ànd koog waa daaira muqaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne mboolem ngoon yi weeru koor wi dinañ koy ànd ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi fii ci jumaa ji ci di tànn ci kenn ci boroom xam-xam yi tànn benn ci thème yi nga xam ne dina amal njariñ nit ñi ñu waxtaane ko ngir fàttilante ak jariñante ci suñ biir tey jii ñu war a waxtaane tomb boo xam ne bu am solo la di manzilatu saxaaba hinda cheikh al di wàccuwaay bi nga xam ne sahaaba yi bu waxee saxaaba yi mooy ñi jamonante woon ak yonent bi te àndoon ak moom te gëm ko ñooñu wàccuwaay bi nga xam ne amoon nañ ko ci sëriñ tuuba radiallahu anhu loolu yi lañ war a waxtaane insha allah thème bi nag mel na ni fi mu ñëwee di fukkeelu fan ak juróom-ñaar ci weeru koor dafa mel ni waxtoom la ndax ku ne xam na ne xew-xew bu rëy boobi di xaswatu badrinil kubra di xare ba badar ci bis ni tey ci ñaareelu at ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tolloo woon ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la xewe woon saxaaba yi ñuy waxtaane seen wàccuwaay ci sëriñ bi wane woon ci jaloora yoo xam ne taarix dootu ko fàtte ba mukk yëkkati ci lislaam yëkkati ci raayab lislaam ànd koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la sëriñ Tuubaa di wax ne rafaa ahlu badrinil islaama wa zaxzaxa alzalaama wal wa zaxzaxa alfujjaara kon tem bi ñëw na ci waxtoom ki nga xam ne moo war a def waxtaan wi di sëriñ Murtada Silla di koo xam ne yaakaar naa deesu ko xamle wala jëratul xamleete ci dëkk bi di Tuuba ndax miin nañ ko ci jotaay yu mel nii miin nañ ko ci xam-xam ak taxawaayam yoo xam ne yu am solo la ci lislaam rawatina ci yoonu murit sëñ Murtada Silla nag eh, ni ma ko waxee léegi daanaka xamle gi da ci doy sëkk rek ñu wax ne fi nga xamee ne fi la ñuy jaarale ndaw yi jullit ñi rawatina ndaw yi murit yi fi lañ ko jaarale ci njàngum alquran ak xam-xam mu jànge ci biir dëkk bi fii ci école al jóge fi itam dem sow jant yeggale fa am njàngam ginnaaw ba itam mu delsiwaat ci réew mi di jàngale xam-xam kon moo ñu war a defal waxtaan wu am solo woow yi ci tomb bu am solo boobu xam naa duñ ci guddal euh, di fàttaliwaat rek tomb bi ñuy waxtaane muy wàccuwaay wi nga wàccuwaay bi nga xam ne saxaaba yi amoon nañ ko ci sëriñ Touba loolu lañ war a waxtaanee incha allah xam naa bu sëñ Murtada ñëwee dina ci dugg bu baax a baax buñ ko teewloo te bàyyi ko xel kon sëñ Murtada ñu ngi lay dalal di la wax bismillah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi saaxibul fadila cheikh muhammadul muntaqa ñaan yàlla mu sàmm ko te defal ko wér mottali liggéey yeeg sumb yi yëpp ba mu sumbaat yeneen ba yeggale ko suñ kanam di ñaanal li njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp di ñaanal it mbokk yi nga xam ne ñooy taxawal liggéey yu am solo yi waa daayira Muxaddamatul Xidma njiital Sëriñ Afiya Buso da nga leen di ñaanal liggéey bu sell bii nii suñ borom di leen gën di kàttanal bañ gën di ko defee lu kawe njort te daje ci ngërëmal sëriñ bi ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi yépp noo ngi nuyu mbokk yi ñuy topp yépp ni ko sëriñ Saalix waxe tomb bi ñuy waxtaane mooy wàccuwaayu saxaaba yi ci sëriñ Touba manes na ko wàcc sax tënk ko ci mbindum sëriñ Touba wàccuwaayu saxaaba yi ci mbindum Serigne Touba di thème boo xam ne nii luñ war di waxtaane la ndax biñ xoolee rek ci gëstu bi daanaka ci xasida yu néew lañ ñëpp lañ tënku waaye lañ ca gis bari na bari waay boo xam ne mënee su ko wax ci benn jataay te ci xasida yu tënkoo tënku lañ lañ yem te ca des sax jotuñu ko ubbi bis bii ñu koy waxtaanee it muy bis bu jara waxtaane muy bis ni tey jii nii la xare Badar amoon ñaari fan ci gàddaay gi ci bisub altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ca place ba ñuy wax Badar nekk ci diggante màkkatal mukarrama ak a munawwara wax nañ ne jataay bu ñuy jataayoo ci lislaam rek jataay bu metti boobu moo ko waral nga ñaay lañ amoon foofa moo waral jataay yi yépp kon bis bu mel ni bu ñëwee jullit yi war nañ koy fàttalikuwaat di tawasul ci góor yàlla yu mag yooyu noonu di leen ñaanal suñu borom dolli leen ngërëm waaye ku gisit sëriñ bi ak ci jaar-jaaram te ci biir waxtaan dana ci feeñ ak digganteem ak ahlu badrin danañ xamaan ne lu jara waxtaane la waxtaane nag dañ koo tënk ci ay tomb yu tënku mën nañu wax ne juróom-benn tomb yu tënkoo tënku bu njëkk bi danañ def benn muqaddima ci saxaaba yi lan mooy saxaaba ridwanullahi alayhi ñaareel tomb bi nag ci la dugg nag ci xasida yi nga xam ne dafa wax ci saxaaba yi waaye nii lañ ko bëgg a séddalee waxtaan wi dañuy njëkk tàmbali ci xasaayid yi nga xam ne daa wax ci xulafaaul arbaa ndax kuy lim saxaaba yi wala nga leen di tudd sëriñ bi saa yu lu ñu lim ci ñoom lay njëkk kon dañuy tàmbali ci ñoom xulafaawul arbaa sayduna abu bakri sayduna omar sayduna usmaan sayduna ali ridwanullahi alayhi ci ñoom la ñuy tàmbalee tudd xasida yi nga xam ne moom lañ bëgg sitee cité ci lañuy ñuy tënku ci waxtaan wi lan la xasaayid yooyu wax ci ñeenti xulafaa yi buñ noppee ñu ko baaxoo limee nag ñu daal di dem ci al asratul mubashirina bil janna li sëriñ bi wax ci ñoom muy fukk yi nga xam ne ginnaaw xulafaawul arbaa suñuy lim ñoom lañ ciy topp li sëriñ bi wax ci ñoom ñeenteelu tomb bi nag ñu ñëw nag ci saxaaba yi ñoom ñépp nag ak saxaabatul kiraam li sëriñ bi wax ci ñoom ci xasi xasaayid yi ñuy bëgg a tudd juróomeelu tomb bi nag ñu am xasida goo xam ne dañ koy beral loxo muy jaalibatul maraqib li sëriñ bi wax ci jaaliba ci saxaaba yi tomb boppam lay doon juróom-benneeli tomb bi nga xam ne ci la tënkee waxtaan wi ci la ñuy tëjee waxtaan wi bu fekkee waxtu yi danañu ko may te yàlla nañu ko may ci lañuy ñuy ñëw nag sëriñ bi ak ahlu badrin sëriñ Tuubaa ak ahlu badrinil kiraam lii mooy tomb yi waxtaan yi ñu tànn nag fukki xasaay fukki xasiida lañ tànn yoo xam ne suñu waxtaan yi du génn fukki xasiida yi jasbul xuluub muqaddamaatul amdaax mawaahibu naafix al miimiya al raaiya asiiru ma al abraar si ndiidi tuxfatu mutadarrain jaalibatul maraqib asmaau ahli badrin ilkiraam ridwanullahi alayhim fukki xasaayid yi ci la waxtaan wi tënk insha allahu taala tomb bu njëkk bi lan mooy saxaaba boroom xam-xam yi dañ ci indi ay taari ay taarif yu bari ay xamle yu bari yu wuute waaye boroom xam-xam bu mag boobu ñuy wax ibnu xajar al asqalaani rahimahullahu taala nee na taarif yépp bi nga xam ne daal moo ci gën a yaakaaru ne bii bii mooy bi ci gën a matale mooy bi ñuy bëgg a wax boobu rek lañ ciy tànn nee na daal as saxaaba mooy ku dajeeg yónente bi waxuñu ko gis ku dajeeg yónente bi lañ wax duñ wax ku gis ndax bu ñu waxee ku gis ña nekkoon ay silmaxa ca ñoom dañ leen ciy génne te ku ne xam ne ne abdullahi ibnu umu umu maktuum ci saxaaba yi la bokk di ko ku ci ràññeeku yaakaar naa abasa wa tawalla an jaahul ama ama boobu moom la yàlla waxal foofu kon ñu wax ko gis dañ naan ku daje man laqiya baatu liqaa la ñuy jëfandikoo ku dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi gëm ko ñu dajeeg yonent bi te gëmuñu ko bari nañ Abu Lahab daje naa gëm ko kenn du ko wax saxaaba Abu daje naa gëm ko kenn du ko wax saxaaba kon ku dajeeg yonent bi te gëm ba tey doyagul ba noppi faatuwaale ku ngëm ndax am na ñu daje woon ak yonent bi gëm ko ba noppi murtat ñooñu kenn du leen boole ci saxaaba yi kon saxaaba dañ naan ku dajeeg yonent bi. def ak moom liqaa ba noppi gëm ko ba noppi faatuwaale ak ngëm googu noonu bu ko defee nag buñ ne waxee loolu nag moo xam daje ga liqaa ga daje ga ab diir bu gàtt la wala diir bu gudd la moo xam jot naa ànd ak moom xare wala jot ànd ak moom xare liqaa daal saa yu amee ak daje aku gëm ak faatuwaale ko gëm saxaaba lañ koy woowe ci taarif bu tënku rek lii moo di saxaaba bari na ñu ñuy tudd ñoo xam ne ci jamono yonente bi du ñuy saxaaba li ëpp ci borom xam-xame loolu lañ wax ndax li tax mooy bokkante na moom jamono ba noppi gëm ko waaye jotu ñoo dem ngir ngànt ku ci mel ne Sayyiduna Uwaysul Qarani moom yaman la nekkoon amoon ngànt yonente bi nangul ko ngàntam mu nekk foofa rafetal ak ngëmam ba faatu yonente bi wax na ci moom lu baree baree bari wax yu rëy ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne euh, daje woon ak ñoom moom te jotuñu ko gis mën nañ ci tudd ñu bari saxaaba yi nag ñu am wàccuwaay lañ ci diini ginnaaw yonent bi ñoo ñi gën ci umma bi ñu am wàccuwaay lañ suñu borom moo leen tagg tagg yu rëy rëy rëy borom bi wax na ci alquranul karim wa saabiquuna al awwaluuna min al muhaajirina wal ansaar wallazina tabacuhum bi ixsaanin radiallahu anhum wa radu anhu suñu borom tagg nañ ñi nga xam ne ñoo jëkk a jiitu ci lislaam moo xam ci muhaajirun yi lañ mooy ñu dëkkoon màkk ñëw madinatul munawara wala ansaari lañ ña nga xam ne ñoo dalaloon jullit yi ñaa toppoon yonent bi daal ci rafetal seenu topp borom bi nee na gërëm na leen suñ borom gërëm na leen wax na ci aay bi lu baree bari ci xeeti maanaam bégale yoo xam ne dañ leen ko bégale bu ëllëgee yowmal xiyaama yàlla tagg na leen lu bari ci alquran waxaat na ci alquran ne laqad radiyallahu anil muminina anil muminina saxaaba yi la ci ñëw yàlla gërëm na way gëm ñoo ñu nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonent bi ca ron garab ga ñooñu ñooy saxaaba yi waxaat ci alquranul karim ne muhammadun rasulullahi wala siina maahu walla siina maahu bi maanaa asahabatul kiram mën nañ koo topp ci alquran bu baree baree baree bare di wax ay aay yoo xam ne borom bi di cee tagg kenn waru leen a suufeel ñoom ndax yàlla moo leen yëkkati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci beneen xadis boo xam ne Seydina Abdullah ibn Mas'ud moo ko soloo xadis bi mi ngi ci saxiixul Buxaari ak Muslim yonent bi wax ne xayru naasi qarni summa lasina yalunahum summa lasina yalunahum ila axiri alxadis mooy ñi gën ci nit ñi nit ñëpp ci gën mooy génération bi fekkee man jamono ba noppi gëm ma topp ma jàppale ma ci woote bi bu ñooñu jàllee génération ba nga xam ne ñoo ñëwaat ànd ak ñi àndoon ak man noonu la ko toppee xadis bi amaat na beneen xadis boo xam ne Seydina Abdullah ibnu Abbas moo ko soloo Seydina Abdullah ibnu Abbas nee na yonent bi nee na man sabba asxaab yi képp koo xam ne saaga nga wala nga ŋàññ ci kenn ci ñëw àndoon ak man te gëm ma te rafetal seenu ngëm te faatuwaale lislaam kooku day rëbbum yàlla dana dal ci kawam ak malaayika yi ak mboolem nit ñëpp kon saxaaba yi ñu kawe ay jëf lañ ñu jara màggal lañ ñu jara xam lañ li ma waxee na xulafaawul arbaa ci lay tàmbalee bala may dugg ci ñoom xulafaawul arbaa ñun ñëpp xam nañ ne mooy ñeent ñi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba mu wuy jee boroomam ñeenti ñooñu ka ca jiitu mooy Seydina Abu Bakrin dana feeñ lu bari ci waxtaan Seydina Omar dana feeñ lu bari ci waxtaan Seydina Ousmane dana feeñ lu bari ci waxtaan wi Seydina Ali dana feeñ lu bari ci waxtaan wi ci biir danañ gën a yaatulaat ci ñoom waaye tënk bi may joxe ci ñoom balaa may dugg ci biir waxtaan wi mooy xilaaf ak Seydina Abu Bakrin mi nga xam ne mooy baabu tariq noonu la ko sëñ bi woowee dana feeñ ca kanam bunt bi mooy bunt bi yoone moo ubbi bunt bi moom Seydina Abu Bakrin Abu Bakrin yonent bi fukki at ak ñett atum fukkeel beeg ñett ci gàddaay gi ca madinatul munawara la wuy ji boroomam atum fukkeel baak ñett atum fukkeel baak benn ñu baal ma atum fukkeel baak benn la wuy ji boroomam moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam la tàmbalee atum fukkeel baak benn ba atum fukkeel baak ñett mooy xilaaf ak sayyidina Abu Bakr ñaari at rek la toog ñaari at rek la toog ci xalifa xilaafa bi doy na sëkk ci liggéeyam mooy bi fi yonent bi jógee daa mbooloo mu bari mu taxaw ne ñoom dañoo dañuy dañuy dañoo dañoo dañoo duutuñu joxeeti asaka am ponk yu rëy ci islam yoo xam ne daal nee na ñoom duutuñu ko defee Aboubacar jël jël engagement am jël ay responsabilité am benn xeex boo xam ne dafa xeex ak ñoom defante kook ñoom ba rey leen loolu bokk na ci liggéeyam bokk na ci liggéeyam mooy alquranul karim moo ko dajale ba mu nekk mushaf maanaam ba mu dajaloo bañ xam ne daal alxuraan lépp ma nga ne loolu ci ay liggéeyam na bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dana feeñ ci biir waxtaan bi Sidna Omar moo jël xilaafa gi atum fukkeel bi ak ñett atum fukki at la toog moom Omar bari na lu mu liggéey ci lislaam futuuxaat yu bari muy lislaam ñu gënee yaatu dem ba Basra Kuufa Shaam fu baree baree baree bari ci bilaadul arab bu fa lislaam àggee liggéeyu Seydina Omar ca la bokk waaye yaraat ñi nga xam ne xañ na defe woon nañoo yaru organiser waat lu bare bare bare ci biir diine ji doy na sëkk rek mooy at mi ñuy datoo ñun atum jullit yi ci xilaafaam la liggéey boobu am doy na sëkk ci liggéey mooy taraawiix yi ñuy def ci naafile yi weer koor gi mën nañ ci ay jamonoom la gënoon a bi mu fi jógee su nóoree ni Seydina Ousmane mooy ñetteelu xalifa bi nga xam ne moo toog at mii ma wax ne ci la Seydina Omar wàccu liggéey nga xam ne dañ koo jam ci julli dana feeñ ca kanam incha allah ci julli lañ ko faatee moom Omar ibn al-Khattab ñaar ak ñett bañ ko faatee Seydina Ousmane moo jël xilaafa bi tàmbalee 23 hijriya ba 35 hijriya maanaam atum ñaar atum fanweer ak juróom ci gàddaay moom Seydina Ousmane moom nag doy na sëkk ñu waxub liggéeyam mooy kaamil bii nga yor di ko jàng Ousmane a ko liggéey ab liggéeyam bi kaamil bii nga yor di jàng nii jullit yépp nag ci àddina bi liggéeyu Seydina Ousmane la doy na ko sëkk doy na ko sëkk ci liggéeyam mën nañ cee wax lu bari moom fukki at ñaar la toog atum fanweer ak juróom bi nga xamee ne Seydina Ousmane wàcc na liggéey moom it dañ ko rey danañ ci ñëw Seydina Ali mi jël xilaaf bi baabul ulumi noonu la ko sëriñ bi dana ko faral di woowee noonu moom it danañ ci ñëw ci kanam juróomi at la toog ci xilaafa gi 35 ba 40 day mel na daal muddatu xilaafa gi yépp ñeent fukki at la ñeent fukki at yooyu sax bu dutoon temps bi danañ ci taxaw wax ci ay wax yi ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax kon ci tënk ñii mooy seenu lii mooy seenu ko mooy seenu ñoom mooy seeni at yi nga xam ne moom lañ toog ci xilaafa bi kon day mel ne Sidna Ousmane moo ci ëppale lu mu toog ci xilaafa gi moom toog na fukki at ak ñaar Sidna Aboubacar wax naa léegi ne ñaari at la toog Sidna Omar fukki at Sidna Ousmane fukki at ak ñaar Sidna Ali juróomi at sëriñ bi nag buñ bëggee ñëw nag ci sëriñ bi ak saxaaba yi wàccuwaayu sëriñ bi ak saxaaba yi wax naa léegi ne lu rëy la loo xam ne tuuti nañ lool ci jéem a indi lépp waaye mënees na ci indi loo xam ne nii day mën naa bee salaat xol yi mën naa yee salaatu cofeel ci ñoom boroom irwaa nee na Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana yàlla na ko boroom bi doon li ngërëm nee na sëriñ bi daa masa a waxanteeg ne suñ borom jaam bu nekk ci jaam yi bu dee jullit la am na kër ci àjjana am kër ca sawara su demee àjjana dañ naan ko xoolal sa kër gee ca sawara soo jaamutoon yàlla fa nga jëm waaye jaamu gi nga jaamu yàlla moo tax fii nga nekk ci àjjana mooy sa dëkkuwaay nee na yéefar bi bu duggee sawara danañ ko wan pale ba moomoon ci àjjana ñu ne ko gis nga kër gu yànji gu rafet gee soo jaamoon yàlla fa ngay dem waaye ñàkk gi nga ñàkk jaamu yàlla moo waral nga nekk fii ci sawara nee na bi mu laajee borom ne ko du noonu la demee borom bi subhaanahu wa taala ne ko waaw noonu la demee kay mu ne ko daa am lu ma la bëggoon a ñaan muy yéefar yi seen kër yi ñu jotoon moom ca sawar muy yéefar yi nga xam ne ñu ngi nekk ak man di ma tooñ di la bokkaale di ma def lu bon lu ne ci musuma fayu musuma leen na ñaan yàlla muy bi mu nekkee ci tukkib géej gi nee na ñoom ñii day dama doon laaj seen kër yeñ moomoon ci àjjana laa doon laaj nga may ma ko nee na fastajaaba lii rabbi wa malaka niiha nee na suñ borom daat koy wuy na ko may naa la kër yooyu yëpp yi ci àjjana nee na fa lama taxaqaqtuha ba nga xamee ne gës maanaam wóorlu naa ko xam ne man maay borom nee na jaxaltuha hadaya ahla badrinil kiram ci laa jël kër yooyu yëpp nag jox ko addiya ahlu badrinil kiram loolu day doy na sëkk rek diggante sëriñ bi ak saxaaba yi daa di wax ne axtaytu saxbahu manasila ida fil jannati allati ihtamat aman hada jox naa kër yi yëpp saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inni jaaltuha hadaya li sihab radiya nag defal naa ko addiya waa ahlu badrin yi nga xam ne seen bis mooy tay lii day bokk na ci liñ mën a feeñal ci liggéeyu sëriñ bi ak saxaaba yi ni ma ko waxe woon ne tomb bu njëkk bi mooy lim wax ci xulafaawul arbaa ci xasida yooyu ma tënk tuddoon manees naa ñëw ci jës bu wax na leen fa tagg yu rëy rëy rëy ba muy wax ña dem badar nee na siddiquhu siddiquhul mukabbaru sul haybatil muwaqqaru anisuhu musabbaru fil xaari baadal alami tudd turam Seydina Aboubacar lay wax xaritam bu màgg boobee borom wegeel ku wegu ko ki nga xam ne ñépp a ko wormaal àndandoom boobu bu mën a muñ boobu àndandoom boobu nga xam ne mooy ca xunt ma boobu sax la doon lim ñi teew badar ci ñoom ci saxaaba yi waaye tudd gam leen ni tudd seenu teewaay rek xoolal tagg wu rëy wii mu leen ci booleen muy Seydina Aboubacar nee na ko tudd na ko siddiqul mukabbar woowe na ko sulhayba woowe na ko almuwaxar woowe na ko anisul musabbar muy melo yooyu nga xam ne wax naa ko léegi ci wolof bi mu ñëwee Seydina Omar wa fihimul mubasharu ka mooy Omar bu mu duggee dañoo wax ne busra li ahli sama keroog ba mu duggee ci lislaam waa asamaan bég leen Omar dugg na ci lislaam ndax yonent bi daa waxoon ne yow yàlla suñu borom maa ngi lay ñaan ci ñaari Omar yi kenn muy Omar ibnu Hisham mi nga xam ne bis ni tey la faat muy Abu Jahlin bis ni tey la faatu faatu gu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw boo xam ne nii keroog ba mu faatoo yonent bi da koo joxoñ ne haada firawna haadihi l umma kii mooy firawna xeet bi mu ne maa ngi lay ñaan ci ñaari omar yooyu benn suñ borom dogal mu mu jot ci Seydina Omar ibnul Xataab keroog ba mu duggee ci lislaam saxaaba yi dañ doon wane seen mbégte nii ñu ko doon wane ci kaw suuf noonu lañ ko doon wane ci kaw asamaan moom moo tax sëriñ bi ne wa fiihi min mubassal bi kulli xayrin omaru sayduna al mutamiru izzatu kulli muslimi nee na daal omar fierté la wala ndamul la képp ku di jullit soo jàngee mbirum Omar daal war na laa neex nee na kooku day teewoon na ko tudd ne ko al mubassar bi kulli xayr woowee na ko sayiduna woowee na ko al mutamiru woowee na ko izzatu kulli muslim yooyu kii mu woowee sayidna Omar la tudd na nag sayidna Ousmane xam naa ñi nga xam ne dañuy yem ci njàngum téere séeréer yi rek da boo moytu dañ ah Ousmane ndax dane wa bokk na ca ñettee woon man nakaha loolu nag da koo firi ca xasida miimi ya la ko gën a leeral lu tax mu tudd ko daa wax ca miimi ya ne bala may ñëw ci jës bu dafa wax ca miimi ya ne isxal bu xosmaana fihim kal ruzaati maan amma salaasatu fal ishaaru man bahama ñetti ñee seenu teewaay leer na naññi muy abou bakar ak omar ak omar ak ali ñoom seenu teewaay leer na ousmane bi ñuy dem badar daa waaj bay bëgg dem yonent bi ne ko ana roqayya sayyidatuna roqayya bintu rasul mu ne ko ma ca tawat ja ba tey mu ne ko man ngaa dem toog topp toog danga nga am tiyaabay ku teew badar looloo te sidna Usmaan demul badar sëñ bi nee na xol ba teewoon na jëmm ji teewutoon waaye xol ba teewoon na looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy séddalee biñ gañee ba am ngañaay gu baree baree bare bi muy séddale daa génne waale ab cër ne lii mooy cëru Usmaan jox ko cëru ku teewoon ne ko inna lakka ajra rajulin mi mën shahida badaran wa sahmahu bis ni tey da am cërub ku teewoon badar yow Ousmane kon sëñ bi bi muy wa fiihimu loolu lay firi kon wa fiihimu man nakaxaa bintay raisi sulahaa nóoréy ne xiina aflahaa bi xatti kulli masami sayiduna al mujammalu xusmaana man xat xatalu wa huwa isan yurattilu kitaaba mutil aksami bokk na ca ña woon kon leer na ne kon teewoon gi bu ñu ko waxee man naa leer ci bopp ñëpp yonent bi nee na ko woon danaa la jox ci rukku teew xol ba teewoon na bokk na ca kon ña teewoon may mooy ka nga xam ne ci histoire ci taarixul bashar histoire doomu aadama mel moom moo ci masa yor ñaari doomi ñaari soxna ñaari jigéen ñoo xam ne ni yonente mooy seen baay loolu moom ba àdduna soso ba léegi Ousmane moo am jagle googu rawatina nag yonente roqo ya la ko jox mu faat mu joxaat ko ummu kalsuum mu faatu mu ne ko law kaana law kaanat indi saalisatun la sa wajtukaha ay usmaan sumaamaatun kaneen de naa la ko jox day nga ma de looloo waral noo rëy ligi sëñ bi nee na ka yoroon ñaari doom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku teewe woon na ko sayduna mu jàmmalu sunu tàng boobee nga xam ne dañoo rafetal léppam Ousmane mi nga xam ne keroog bi muy faat da ko fekkoon muy jàng alquran toog ferenku laay jublu penku ñu gaaw këram gi ñaar juróom fukki fan yu manqué benn 49 jours lañ da gaaw këram Ousmane lekk duggut naan génnut Ousmane ferenku laay di jàng suratul baqara yi bañ demee ba nga xam ne yokkat nañ sonn nañ ci gaaw gi dañoo jékki-jékki bëtt kër gi dugg ci biir fekk ko mu ferenku laay di ku ku wegu jëmm ji mel noo xam ne taar bi foo ko takk wees na ko sikkin bu gudd lool jëmm ji wegu lool mu ferenkulaayu jublu penku di jàng alquran nekk tolloog suuratul baqara gaa yi dugg rendi ko moom la sëriñ bi naan wa huwa isan yu rattilu keroog bi ñu koy rendi rendi laa wax waxuma jam rendi xatit deret ji daa tuuru ci kaamil bi ca aaya bañ naan fa sa yakfikahumullahu wa huwa samiun alim sëriñ bi nee na keroog bi ñu koy rey wa huwa isan yu rattilu kitaaba mutil ak sami mi ngi doon jàng téere bi yàlla bi moom Seydina Ousmane boole ci nag daa wooroon tekki moom Seydina Ousmane sëriñ bi wooy ne ko nuuréy ni sayyiduna al mujammalu man xutila wa huwa yaqra'u alquran wa huwa yurattilu kitaaba mutil aksami nee na teewe woon na ko mu ñëw nag ci ñeenteelu xalifa bi muy sidna ali wa fihimul jaalil wasan abul xasan abul xuseyni wal xasan baabul ulumi wal xatan abu shira abu shiraafil anjumi sayiduna al mukarramu aliyuhu muazzamu murdil isa azamzamu maahil asa wal wajami sidna ali lay waxal bokkoon na ca ñaka teewe kooku moom ab teewaayam daa jara wax gis ngeen bi badar amee rasatu badrin kubra ba ñaar ñëpp ñaari kuréel yëpp taxaw jàkkaarloo jege lool yéefar dañoo wax ne Utba dafa jug Xutba Walid Shayba ñetti kilifa ci ñoom dañoo jug taxaw wëndeel seen jaas bàkk taxaw ci kanamu jullit yi ne nu riidul mubaarasa dañoo bëgg ak léewtoo keroog bi ñu waxee loolu rek waa ansaar yépp dañoo jug ndaw yi ansaar yi xale yu góor yi ansaar yi yépp dañoo jug ne yonent bi bàyyi ñu ñu dem léewtoo ñoom ñoom ñoo waxal seen bopp ne ñun soxlawuñ leen yéen ñun ñiñ soxla mooy ñiñ bokkal deret ñu jóge woon màkk ñëw gàddaay ay kilifa moo jug taxaw de Utba moo taxaw Walid moo taxaw Shayba moo taxaw ay kilifa lañ soxla ci yéen yonent bi daal di jékki-jékki ne Hamza ibnu Abdul Muttalib jugal Ali jugal Ubayda jugal keroog Sidna Hamza ci ay seconde la rey ki mu àndaloon ki mu doon mubaarasaam Ali it kasaalik moo tax ma ne Ali moom ab teewaayam dañuy war a taxaw ci moom nag moom ci ñu njëkk rey ca Badar bis ni tey ca la bokkoon moom Sidna Ali radiyallahu taala anhu moo tax sëriñ bi nee na ah Sidna Ali moom bàyyi Asan ak Useynu ñu taxawaat. ñu bari ci ñun dañuy jàpp ne Asan ak Useyn ay seex lañ déedéet du ñuy seex de Asan a magee lu bari Sidna Asan bin euh, ibnu Ali Fatimatu Zahra di yaayam ci weeru koor ci juróomi fan ci weeru koor la gën a jamono Sidna Useyn mage na ko lu bari xañ na tur yu nuroo yi ñun wolof moo tax ñuy jàpp ne ay seex lañ waaye mage euh, du ñuy seex du ñuy seex de ñoo bokk nag ndey ak baay Fatimatu Zahra mooy seen waajuru jigéen danaa ñëw ci moom Fatimatu Zahra sëñ bi tudd na ko faneen baabul ulumi nee na ali day mooy buntub xam-xam yonent bi waxoon na ko moo ko woy woon loolu abu shiraafi mooy baayu wala maami jirim yëpp ma maami sërif yëpp sërif yëpp surafaa yi moom mooy seen mooy seen baay wala ci moom lañ soqi koo suñu sang boobu nga xam ne moom lañ teral àll yu mu tedd ma àll yi moom nga xam ne mooy ki aay lool ci noon yi àll yi moom nga xam ne mooy jàmbaar ji nga xoolaat fii tudd na ko baabul ulumi tudd na ko sayiduna al mukarramu al muazzamu murdil ida maail ada wal wajami yooyu yëpp woowee na ko sayiduna ali ca jës bu loolu lañ mën a wax ci jës bu lu mu wax ci xulafaawul arbaa danañ ñëwaat ci jës bu ci kanam insha allah mawaahibu naafix lu mu wax ci xulafaawul arbaa ala ala al atiqi bi moom moo dàq lépp moom amul kum tudd saw tur nam taxawee tagg yonent bi ba mu jeex ci tudd ko turam noonu la tagge saxaaba yi ba mu jeex ci tudd seeni tur alal atiqi baabi tariqi axil wusuuqi kullu ridaay alal wasiiri sayfil basiiri ridal xadiiri mujril xadaay alal diyaay axil xayaay xayru ridaay min sil baqaay alal xaribi laysil xurubi ridal ñëpp la tagg ca tudd seeni tur atiqi naa Abu Bakrin moom lañ doon wooyee atiq yonent bi moo ne woon Abu Bakar atiq la yàlla da ko goreel ci sawara am na ñu ne li tax mu tudde ko atiq mooy xar kanam gi dafa rafetoon arab dañ daa def ku sa xar kanam rafet ñu lay wooyee atiq sëriñ bi daal ne yàlla yàlla ngërëmal yàlla nekk ca atiq baabi tariq gis nga di mu ko wooywaat ki nga xam ne moo mooy bunt bi ki njëkk a dugg ki nga xam ne ginnaaw waa kër yonent bi muy sayyidatuna Khadija ak Ali mi nga xam ne xale la woon ci biir kër gi ginnaaw ñooñu ki njëkk a wane yoon wi mooy Abu Bakrin yëmut rek ci njëkk dugg waaye bari na ci al asratul mubasirina bil janna ñu dugg ci lislaam ñoo xam ne nii Abu Bakar moo ak ñoom ndax dafa bari woon alal am personnalité bari bari ab relation ku mu waxal ak yow rek nga lu baax lañ xam ci yow bari yu baree bari yu dugg ci lislaam ñoo xam ne nii Abu Bakar moo leen présenté yonent bi sallallahu alayhi wa kon kay mooy baabi tariq axil wu suuxi ridaay sëñ bi li mu koy ñaanal mooy kullu ridaa kooku kullu ridaa laa koy ñaanal gépp ngërëm alal wasiiri kilifa boobu ñuy wax wasiir sayfil basiiri sayidna omar ridaal xadiiri laa koy ñaanal mujjiril xadaay gis nga de lu wax lu wax abu bakrin kullu ridaa la koy ñaanal omar lu koy ñaanal ridaal xadiiri ala diyaay borom leer ga axil xayaay ku bari kersa ka nga xam ne yonent bi da koo rus malaayika yi rus ko yonent bi toog na ferankulaayu ab tànkam di feeñ Aboubacar dugg defaru ko Omar dugg defaru ko ñu ne ko Ousmane moo yëglu mu jug defaruwaat toogaat defaraat yére yi ñu ne ko yow yonent yàlla bi Seydina Aboubacar dugg na defoo dara Omar dugg na defoo dara Seydina Ousmane dugg na defoo dara Ousmane dugg nga defaruwaat mu ne ah xanaa kii yeyut xanaa kii jotut ma rus ko koo xam ne malaayika yi dañ ko rus moom sidna Usmaan moo tax sëñ bi de axil xayaay lu ñu koy ñaanal mooy xayru ridaay xayru ridaay min sil baqaay alal xaribi sidna ali ku jege ka yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu deret Abu Talib mooy bàyyam Abu Talib ak Abdullahi mi waajur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo bokk Abdul Muttalib lay sil xurubi gaynde xeex ali moo waxoon boppam ne moom mooy lays ca xasutu xaybar la ko waxoon xare xaybar ba mu waree jàkkaarloog marxab ba nga xamee nee na marxab nee na xat alimat xaybaru anni marxabu saaki silaahu batalul mujarrabu ba muy bàkk ne ko yow nag ali yow mii ñu ma booleel yow yaa ma xamut de waaye suuf sii ñuy xeexe xam na ma muy xaybar da nga may laaj xaybar man maay jàmbaar ñi nga xam ne ñépp a ma xam ali ba mu jógee di ko tontu dane ko ana la si samat nii ummi xaydara saaki silaaxu batalul mu saa eh, saaki silaahu batalul mu jaram wala ka lay si xaabaati karihil munzara ca xasida googu sidna ali moom moo wax ne moom daa judd rek yaayam di ko wooyee gaynde moom nigul ba màgg di woowee boppam gaynde gaynde gi di ko waale moom mooy gaynde xeex lu mu koy ñaanal rek daal mu jiibi ñu taxaw fii tuuti sëriñ bi dafa wax aboubacar noo xam ne nii jaarut ci turam ñaanal ko loo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk lu mu leen ñaanal te boo bokkul nu ko waxee loolu moom ci njëkku làng wi la ak ci yeneen yeneen yeneen yoo xam ne kenn xamul lu mu doon Seydina Aboubacar mu ne ko alal atiq lu ko ñaanal kullu ridaay Omar mu ne alal wasiiri lu mu ko ñaanal ridal xadiiri Ousmane mu ne alal diyaay lu mu ko ñaanal xayru ridaay Ali mu ne alal xaribi lu ko ñaanal ridal mujjibi loolu moom <laughs> lu doy waar loolu la wax ci xulafaalu arbaa ci mawaahibu muqaddamaatul amdaax li mu ci muqaddamaatul amdaax abu bakrin fii da leen tudd nag wax leen lu rëy abu bakrin siddiq su sidqi wal wafa rafiqu nabiyil mustafa rafiqu nabiyil mustafa alxaara anbau abu xafsinil faaruq charwaahu naabirun bihi tazza diinul Mustafa is yusa saw afi sahbi man daaha ibnu xafaana salhaya lahu nuuru summa nuuru mihman mubayyu abu subtayni almuxtaari wa huwa ibnu ammihi aliyun ala faqiran nihman mujarraw loolu la wax ci ñoom xulafaa al arbaa nee na Abu Bakar borom dëggal ga borom kóllëre ga àndandoo bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xuntuma abu xafsin baayu xafsa Xafsa kenn la ci doomi Omar yi waaye yonent ci kenn la it ci soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca kanam bu ma demee ca xasiida Tuhfatu Mutadarriin danaa ci tuddaat lu baree baree bare bëri sëñ bi tudd na ko Abu Xafsinil Faaruq sarwaahu naadirun kooku ay mayam moom dafa raar moom Sidna Omar kooku la yàlla dëgërale diine ji ci moom bihi tazza diinul Mustafa ci moom lañ dëgërale diine ji daal di ñëw da ci Ousmane waaye yéen afi saxbin man daa xam na afaana salxayaa ndax ku mel ne Seydina Ousmane am na ci saxaaba yi lahu nuuru summa nuuru nixmal mu bawi mooy borom leer gi ndax moo dencoon Roqayya mooy borom ganeen leer gi ndax moo dencoon Ummu Kalsum ndax ku mel nii am na amut ci saxaaba yi amut ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amut ci taarixul basar comme na ma koy xoon ci tàmbali bi nit ku takk ñaari doomu yonent rawatina yonent yàlla Muhammad kon day afi sax bin amut ci saxaaba yi amut sax ci xeetu yonente bi amut sax ci mbindeef abu sib tey ni ñaari doomi sët yonente bi sët yi mu njëkk a gis ali yi mooy seen baay doomi baayam boobu nga xam ne ali mi nga xam ne mooy ku baax kooku noonu loolu la wax ci ak xulafaalu arbaa ci muqaddamatul anba raaya li wax ci xula xulafaalu ci raaya ba mu ñëwee ci aboubacar fii moom Euh, niñ ko jàngate mooy da leen a tagg ba noppi ak maîtriser gu maîtriser siiratu nabawiyya moom Serigne Touba daa feeñaale ci biir tagg yi maanaam maîtriser gu maîtriser jaar-jaar yonent bi daa fa feeñ bu baax a baax a baax a baax ci béy fi raaya yii nii lam yasribal xamra lam yasjud ila sanamin wal walidaani ma al awlaadi abraaru sidna Abu Bakrin ay waay jëmm ji nga xam ne ba lislaam amagut sax musta naan sàngara moom lislaam taxul mu bàyyi sàngara lam yasrib alxamra lam yasjud ila sanamin lislaam taxul mu bàyyi euh, jaamu xëram moom naka jekk daa seexlu woon ay xëram lu jiitu lislaam di am wal waalidaani ma al awlaadi abraaru li ma lay wax ne daa maîtriser ku ci nekk day wane maîtriser gu maîtriser bu baax a baax sirat nabawiya nee na kii famille ba waa kër gi ñépp dugg nañ ci lislaam aboubacar dugg na ci lislaam baayam abdullah ibnu Quaafa moom lañ xam ci xulafaalu arbaa koo xam ne sa baay daa dugg ci lislaam dugg na ci lislaam bisu fatxu màkk fatxu màkk it ñu fàttali ne ci weeru koor la woon soxnaam umu ruumaan dugg na ci lislaam doomam yépp dugg nañ ci lislaam ba ci jigéen ñi aïsa asma bintu abi bakrin muhammad ibnu abi bakrin abdurahman ibnu bakrin ñoom ñëpp dugg nañ ci lislaam loolu sëriñ bi feeñal na ko ci bayit boobu noonu ci ñoom ñëpp la nag ni mu ko wanee ci abou bakar bu ma ñëwee ci omar ak ousmane ak ali da cay feeñ abu xafsinil faaruq sayiduna fa fi masaayaahu laa yartaabu dayyaaru wa huwa almutammimu sawi lislaami yowma hada miiman bihi kaana lil islaami ishaaru wallahu faraqa bilfaaruqi sayidina alxaqa min batilin abdathu fujjaaru wa yowma aslama jibrilu laminu ata bi isni man huwa fawqa alkulli qahaaru mualliman anna islaaman fata umaru busra li ahli sama wal kullu yaxtaaru nee na day sidna sidna omar mi nga xam ne mooy alfaaroox ki nga xam ne bi mu duggee rek daa tàggale diggante caaxaan ak ak ak dëgg dëgg nekk fee ñu di ko topp li di caaxaan nekk fële nee nag kooku nga xam ne day mooy sidna omar moom mi nga xam ne yow ma aslama bis bi mu bis bi mu duggee ci lislaam jibril dafa ñëw di wax ñépp naan leen bëgg leen omar dugg na ci lislaam xamal leen ne leen Omar dugg na ci lislaam loolu wax naa ko léegi ci bayit bii ñu weesu woon ci sëriñ bi bi muy tagg ci mawaaxi bi yaakaar naa noonu mu ko waxee Sidna Omar noonu la ko waxee Sidna Osman amma ibnu xafaana ay xosmaanu sayiduna fa xaalahu fiihi bi tafdili ishaaru xaasa sahaadata wa nuuri ni summa lahu min arrasuli xusuusatun wa asraaru baata nabiyu ila fajrin yaruumu lahu ridan min allaahi saa tafdilu kubbaaru xaasab na tayhi wa ridwanan wa maxfiratan isxanhu qad xutta ijhaarun wa ishaaru wa fiihi qaala nabiyu usmaana yasfaxu fii sabxiina alfan wa kullun xaqahu nnaaru wa huwa allasi minhu tastaxi malaaikatun walmustafa fa lahu qadrun bal aqdaaru wa min karaamaatihi isxaasaruuhu tamun yowman ala daarihi sulman wa huwa sabbaaru ah Sidna Ousmane nag daa wax ci moom lu rëy nag moom moom ñaare day da ngay gis moom ni muy waxee ci Ousmane cofeel gi ci ñëpp la waaye day feeñ ci Ousmane bu baax a baax a baax a baax Sidna Ousmane mi nga xam ne moom mooy borom ñaari leer yi waxoon nañ léegi ñaari leer moom mi nga xam ne yonent bi mas naa julli gee ba noppi ba dafay nawaafilam di wax naan allahuma irda an Ousmane fa inni radin anhu ba fajar yow yàlla man day gërëm naa Ousmane yàlla nga ko gërëm moom la sëñ bi naan baata nabiyu ila fajrin ila fajrin yarumu lahu ridan min allaahi fanaan na ba fajar di ko ñaanal ngërëmal yàlla suñu borom ana lu waraloon lool loolu xasbatu tabuuk la woon xare tabuuk muy xare bi mujj ci lislaam xare boobu noonu dafa am ñetti xew-xew yu metti yu ci daje woon bu njëkk bi mooy tabuuk gañ war a dem dafa sori lool bu ñaareel bi mooy climat bi dafa tàng dégere boo xam ne nii mësee su koo xam bu ñetteel bi mooy dañoo ñàkkoon ay jumtukaay ay yóbbal yonent bi na daa def benn déclaration daan ne man jahasa jaysul xusra falahul janna lu waay andi na ci xare bii nii àjjana mi ngi koy xaar fa ata abu abubakar indi bi kulli maalihi abubakar ñëw dajale këram nga lépp buub teg ci kanamu yonent bi yonent bi ne ko waa yow maa saa ab xayta li ahlika yaa aba bakrin waa loo bàyyi sa kër mu ne ko allahu wa rasuluhu yàllaa ko bi yonenteem omar ñëw bi misli ko maa ab xayta li ahlika yaa omar mu ne bi nisfi ma ataytu waa Omar loo bàyyi sa kër mu ne ko lu toll ne lii ma indi yaa wax lu waaye am lii laa am lii laa man indi naa lii bàyyi naa fa la ca des bi Ousmane ñëwee nag la yonent bi jug di rongoñu di wat mu naan maa dara Ousmane baax da dal yow Ousmane mënutu def dara tey lu ko yàlla yi toppeeti suñ borom goreel na Ousmane yëmu ca de ne ëllëg yomal xiyaam sabxiina alf juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne ne sawara lañ waroon a dem Ousmane mooy taxaw ba duñ dem sawara dugal leen àjjana ndax dafa ñëw indi loo xam ne yonent bi dafa mujj ne doy na indi ay gileem yoo xam ne yu ànd ak i sëf marchandise alal ngànnaay lu baree bari loo xam ne boo ko doon xayma tey da nga ay million walla ay milliards moom la sëriñ bi naan baatal na bii mooy li ma la waxoon léegi ne la ak maîtriser asiratu nabawiya day feeñ ci tagg yi mu ne ni tagg wa fiihi qaala nabi nee na moom Ousmane day yonent bi waxoon na sabxiina juróom-ñaar wa kullun xaqahu naar ñoom ñëpp waxuma ñu war a dem àjjana de ñu war a dem sawara ñoo xam ne lijjanti nañ seen i mbir ba nga xam ne sawara lañ war a dem Ousmane mooy li mooy waxaat ci sañ-sañu yàlla na leen dem leen ngeen duggi duggi àjjana nee na bokk na ci karamam waxoon naa ko léegi gawoon nañ ko euh, fanweeri fan ak juróom-ñeent maanaam ñeent fukki fan yi manqué benn yoo xam ne nii dañ ko faa garoo gawoon mu muñ lépp mu ñëw ci sidna ali amma ibnu hammi rasulillahi sayiduna sawjul batuli aliyun fa huwa muxtaaru lahu sujaatu walxirfaanu ma sharafin walxubbu walxurbu wa huwa alunsu waljaaru baabul xuluumi abu sibtayni summa lahu hudal mala wali xayri xalqi inzaaru lahu axarra rasulullahi mansilatan minhu ka haaruna min muusa ladun saaru wa min sajaatihi an baata muttajaan fawqa alfiraasi wa xawla daari makkaaru alayhi burdatu xayri lxalqi muttaki an walam yusibhu min almakkaari idraaru sidna ali moomum loolu nee na sidna ali mi nga xam ne mooy sawjul batuul sawjul batuul mooy fatimatu zahra mi nga xam ne yonent bi nee na woon mooy ki gën a nuroog yonent bi ci doomam jigéen la waaye mooy ki gën a nuru ak yonent bi moom Fatimatu Zahra nee nañ bu la wanee ginnaaw doxin ba taay ba ni mu tolloon xefin ba muñin ba xoolin ba moo yonent bi benn lañ mbëggeel gi mu bëggoon Fatimatu Zahra yi da daa feeñ ci waxtu wu ne da daa wax naan Fatima badaatun min nii fa man axdabaha faqad axdaba nii Fatima lumbu deret la bu waayi ko ci man ku ko merloo rek man nga merloo moo tax mën nañ ne bokk daa jël kim gën a sopp ci nit ñi wala kim ki nga xam ne bokk na ci ñim gën a sopp ci nit ñi muy ali ibn abi talib mu jox ko fatimatu zahra moom la ñu wooyee sawjul batul ali mi nga xam ne mooy borom kërub soxna fatima borom njàmbaarte ga moo ko wane woon ca xaybar moom sidna ali borom xam-xam ba borom tedd nga ka borom mbëggeel ga mbëggeel gu réy gi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lool dëkkandoob yonent bi baabul ulumi buntub xam-xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sidna ali mi nga xam ne moom la yonent bi waxoon ne ko xanaa bëggoo nekk samam haaruna ni haaruna meloon ci Moussa nga ko ci man moom la sëñ bi naan minhu ka la dun saaru loolu xaswatu Tabuk la woon tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa joxoon ndigal sidna yu ne ko na toog madina mu xaar ko fa ali mel ne kuy xaw maanaam daal mel ni koo xam ne bëggoon naa teew ci xare ba xam nga jàmbaar jàmbaar lool bëgg dem xare nga toog loo ko faaw dana am lu feeñ ci moom ali yu mel na daal yonent bi sentir ne ali yi mi daal toog gi daa mel na mu ne daal di yëkkati loxom bi moom yonent bi teg ko ci mbagg sidna ali yu ne ko amma tarda an takuna minni tahaaruna bi ah, mansilati Muusa ne ko xanaa bëggoo nekk comme man ni Haaruna meloon ci Muusa nga xam ne fu fu Muusa dem rek Haaruna toogal ko fa sidna ali commencé muñ nag mu ne ko yaay si moom Haaruna moom la sëñ bi naan fii min huka haaruna min muusa ladun saaru loolooy waral wax ci bokk na ci njàmbaaram nee na sidna ali mooy ki fanaanoon ca lal ba lal ba nga xam ne moom la yéefar ya taxawoon di ko waajtal ne waj lal bii nii keroog bañ dajee ca daaru nadwa ndaje moomu iblis soppaliku na ñaari jëmm ci jamono yonent bi ëpp nag na ko ëpp nag waaye ñaari ñaari xew-xew yii nii moom soppaliku na jëmm moom jëmmi nit ndax iblis dafa am xam-xam xew-xew bu njëkk bi mooy ba yonent bi di waaj di gàddaay iblis yëg na ne bu yonent bi génnee màkk gi dugg madinatu munawara dana réussir mu ñëw soppaliku jëmm joo xam ne nii góor la bu màggat bu ñu xam ci tund ñëw bokk ca réunion ba ngir mën a xelal gaa yi xel moo xam ne nii danañ ko doxale ndax gaa yi ñu jëfandikoo seen xel nit yi rek yonent bi jaar seen kaw jàll iblis nag daal di takku na ne tey moom faw ma ñëw keroog ba mu ñëwee ba gaa yi naan tey ñu ko génne moon leen bu ngeen ko génne mu ñëwaat bàyyi leen seen wax ji ngeen wax mu ne tey ngeen koo tëj mu ne bu ngeen ko tëjee saxaabaam yi aal yi ñu yoree dañ koy tijji bàyyi leen li ngeen di wax ñu ne tey ñu koo rey ñu ne ah ku ko rey da am problème aka bari mbokk ñu ne niñ koy reyee mooy xabila bu ne dangay ñëw indi sax benn xale bu góor ñu jox la jaasi ju rëy suñ ñëwee na dal ñëpp dóorandoo xanaa bu ñu porte plainte duñ porte plainte màkk gépp banu haasim ni ñuy def iblis ne waaw kay nag lii moo baax iblis booba jàppoon ne moom la yàlla naan wa yamkuruuna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin ña nga ca daaru nadwa di waajal ay pexe waaye man it maa ngi lay fexeel fii ay pexe yoo xam ne samay pexe mooy jàll pexe yooyu yàlla pexeel yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci mooy salal bii bu ci fanaan na ci àll yi fanaan sa mbàjji mii na ci àll yi sànq moom la sëñ bi naan wa min sajaatihi an baata muttajaan fawqa alfiraasi wa xawla daaru makkaaru mooy moo fanaan ci kaw lal bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fawqa alfiraasi ca kaw lal ba wa xawla daar li wër kër gi yëpp makkaaru mooy xale yu góor yooyu ñu joxoon ndigal ñu ngi wër kër gi yonent bi génn na bu yàgg ba dem gaa yi ña nga toog taxaw di xalaat nan la ñu duggeeg nañu doxaleeg nangam nangam far yàlla def ñu gëmmintu foofu gëmmintu gu méttee méttee métti nelaw fa gëmmintu goo xam ne nelaw goo xam ne daal amuti waajtaay foofu la yonent bi génn nag jàng wa ja'alna min bayni aydihim saddan min xalfihim saddan fa axsaynaahum fa hum laa yubsiruun tibbul suuf tifli ko ci sotti ko ci seen bopp yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu sotti la sa bopp bi daal di dem ba mu demee ba sori nag la yàlla def ñu yeewu ba ñu kenn ku ne boo sëggee nii rek suuf si wadd nga ne ah waa li doon kenn ku ne wax ko sa wa yamkuruuna wa yamkurullah yàllaa ko waxoon de wallahu xayrul maakirin moo leen waxoon ne dinaa leen wan ne maa leen dàq lalub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba bañ ñëwee jëmm ju tuuti lañ fa fekk ab xale bu fa tëdd muy Seydina Ali ñu ne kii de jëmm ji sàngu nii de du Muhammad moom lu tuuti lii ñu dindi bopp bi gis muy Seydina Ali ñu wax wax anamu anamu nee na keroog Ali ci bëggeel gi mu bëgg sëñ bi wax na ko de wal xubb ak bëgg yonent bi mbëggeel ga mënoon naa wax ne dem de waaye nee na nanguut a wax dóor nañ ko fa dóor yu métti waaye nanguut a wax mu ne kii mooy borom cofeel gi wal xubb wal xurbu jege ñaare dong moo la mën a may nga fanaan ci kaw lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sàngoo mbàjjum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy wal xurbu seen pexee daal di nas foofu waxoon naa ñaari yoon la ñaareelu yoon bi badar la bis ni tey teewoon na bis ni tey iblis teewoon na ndax yonent bi daa wax daa wax yàlla ne ko yonent bi daa wax yàlla ne ko kuréel bu néew bii di xeex si tey muy 313 yi nii taxaw nii war a dajeeg junni nit yële ne ñii ñoo ñi la dese ci kaw suuf gis nga ñii bu ñu leen gañee kenn duutu la jaamooti ci kaw suuf abadan loolu la wax yàlla iblis nag loolu la yëg ne kon kay naa fexe jaar ca gaayee ñu gañee bu ko defee kenn duutu jaamooti yàlla ci kaw suuf waaye suñu borom xamal ko ne ko yaayam nga la ngañaay li ci yéen lay féete yéen jullit yi sa yu samul jama wa yu walluuna dubur keroog bi aay bi wàccee yonent bi daa muuñ ba bëñam yépp di feeñ te gisuñu woon kanam di ubbeeku benn yoon ci lu guddi gi jiitu badar ak bisu badar doon na ñaan sax ba kol gi mu koloo woon wadd ci suuf naa sidna abubakar moo ko jëlaat di ko kolal bopp di ko kolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ci asamaan si rek naan yaa xayu yaa xayuum yaa xayu yaa xayuum ajjil euh, suba iblis soppali ko woon na jëmm am na ñu ne suraaqa ibnu malik jëmm jooju la jëloon nekk ci biir di xeex bañ demee ba nga xam ne leer na ne jullit ñooy am ndam da leen wan ginnaaw ne leen inni axaafullaha rabbul alamin maa ngi dem man waru fasam daw feeñoon na ci barab boobu noonu kon iblis allaib kon loolu mooy li feeñ ci muqaddamatul amda ci xulafaul arbaa ci si ndiidi wa bisaxaabati summa al awliyaai maan wal aamilina min al ahbaari wa bi siddiqi wa bil faaruqi summa bisi nuurayni summa abi sittayni yàlla fii nag tuddug tawassul la ci ci jeexantal waxtaan wi bu soobee yàlla su may tëj danaa leeral tudd yi yëpp façon tudd la waaye fii nii moom tuddug tawassul la gu doon ñaan la tudd yonent yi tudd saxaaba yi tudd it xulafaal arbaa maa ngi ñaan ci barkeb siddiq ak faaruux ak nuurayni ak abu sibtayn yàlla noonu la ko tuddee ci sindiidi xasida gi ci toppaat mooy asiru maa labraar nga xam ne mooy xasida gi ñuy tëje nag ci xulafaalu arbaa tudd naa jës bu xulafaalu arbaa mawaahibu naafi xulafaalu arbaa raaya xulafaalu arbaa muqaddamatul amdaax xulafaal arbaa si ndiidi arbaa xasiid asiiru nga xam ne bi muy génn la wayoon nan la ci tudde xulafaal arbaa fii nag moom tuddug ñaanal la tuddug ñaanal la salaatun wa taslimun min allaahi sarmadan ala xayri man ala xayri man tuskaa ilayhi umuur ala xayri xalqillaahi turran muhammadin safiixi lasi kulli yaqi wa huwa yuniiru maa al aali wal ashaabi usdil ida maan sawi zabbi anni kulla man sa yajuuru ala xillihi siddiqi ridwaanu rabbihi kama xaaranaa fi lxaari xiina yasiru ala say ala sayfihi lfaaruqi min rabbihi rida kabirun kama xad zabba wa huwa wasiru wa minhu lisi nuurayni abqi ridaa'uhu kama kama faasa bi nuuri bi nuurayni wa huwa sabuuru ala walidi sibtayni asna ridan kama abadal ida bi sayfi wa huwa sahiru lii mooy xasida gi ñuy tëjee ci xulafaal arbaa tudd na leen ci ala xillihi siddiq wax naa léegi ne tudd ñaanal la lam ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko aalu yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la ñaanal as-siddiq lu mu koy ñaanal ridwaanu rabbihi moom mi nga xam ne moo àndoon ak moom ca xuntuma ala sayfihi ala sayfihi comme la nga ko waxoon ci mawaahibu sayfil basiri ala sayfihi al faaruq jaaseem jooju nga xam ne mooy al faaruq moom it li ma koy ñaanal min min rabbihi ridwanun kabirun kum ca tegaat sidna Ousmane wa minhu li sin nuurayni sidna Ousmane moom mu ñaanal ko sidna Ali mu ñaanal ko kon lii mooy xasida yooyu lim leen tudd ci xulafaalu arba waxoon naa léegi ne sëriñ bi bu lay tudd léeg-léeg niñ ko seetloo ci mbind mi bu tuddee xulafaalu arbaa da ciy teg al asratul mubassirina bil janna ba noppi kum ciy tegaat mu teg la ci fukki yi nga xam ne yonent bi daa waxoon ne seenu àddina leer na dafa am xadis boo xam ne mi ngi ci saxih ibnu xibaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne saïd ibnu zeyd moo ko solo yonent bi daa toog yàgg mu ne abu fi fil janna wa omaru fil jannati wa osmaanu fil jannati wa aliyu fil jannati wa talatu ibnu ubaydillah wa zubayr ibnu alxawaam fi ljannati wa abu wa abu xubaydatu ibnu amir ibnu aljaraax fi ljannati wa saadu ibnu abi waqaas fi ljannati wa sa wa said ibnu zaydi fi ljannati wa abdurahmaan ibnu xawf fi ljannati muy fukki yi nga xam ne dafa seere woon ne seenu àjjana leer na ñoom bañ ko déggee wàññiwul dara seenu jaamu yàlla abu bakar fekk ko fa woon bañ ñëwee ne ko yonent bi da doon lim fukki yi war a dem àjjana yow la njëkk a tudd daa jug julli téeméeri rakkaat ne boo demee daa am jëf ju baax ju may bëgg a def ca jëfaguma ko boo demee looloo tax daa gën a yokkaatu jaamu yàlla moom fan ñun kuñ ci séeraloon sax àjjana moom nga toog commencé moom doo defati dara waaye moom ba ko séeralee ka àjjanam nee nañ dañoo gis ne dafa gën a sóobuwaat ci jaamu yàlla ba yonent bi danaa wax naan ku bëgg a gis néew buy dox ci kaw suuf xoolal Abu Bakri sëriñ bi bi mu tudd al asratu mubasirina bil janna ci tuhfatu mutadarriin fii moom ginnaaw asmaau ahli badrin xasida googu noonu nga xam ne naa ñëw ci moom xasiid ak tuxfatu mutadarrihin gisuñu moom mooy bi mu ëpp lu mu tuddi saxaaba ci yiñ gis ci fukki yi ma waxoon ne ci laay waxtaan fukki xasiida yi ma tuddoon ci tàmbali bi ne ci laay waxtaan xasiid ak tuxfatu mutadarrihin danañ ci taxa bu yàgg baax a baax a baax a baax wa bi muhammadi rasulillahi alayhi xayru salawatullahi suma alayhim liyahab imaana qad saaxaba al islaama wal ixsaana bi xurmati siddiqi wal faaruqi julliya bil ixlaasi wa tawfiqi bi xaqi xusmaana axi nuurayni wa bi aliyi walidi sibtayni habliya fi dunyaaya maa uxraaya an nuura wal uluwa wal masaaya bi xaqi talxata wa bi zubayri wa xaqi saadin najjini min dayri wa bi saidin wamnu awfin najjini min kulli ma axaafuhu min fitani wa bi abi xubaydata ujlub maa yufiid ila janaabi waqfi anni maa yubiid juróom benn bayit la yoo xam ne asratul mubasirina bil janna yëpp tudd na leen ci bala may ñëw ci bayit bi fukki yii nii ñett ñoo ci teewutoon badar ñett ki ci njëkk mooy Ousmane wax naa ko ci tàmbali bi léegi moom daa amoon ngànt Roqaya moo tawatoon yonent bi ne ko toogal nga toppatoo Roqaya te ba muy joxalee séddale jox na ko cërub ku teewoon sëñ bi wax na ci mim léegi nee naa la nee na sëñ bi nee na teewoon na teew xol mooy bu njëkk bi talaatu teewutoon ibnu Ubaydullah saam la ko fekkoon ci commerce yonent bi jox na ko cëru ku teewoon Saïd ibnu Zayd teewutoon bindkat yi léeraluñ lu bari lu tax teewutoon kim tudd ci al asratu munbasirina bil janna mooy tudd na xulafa al arba tudd naa leen yu baree baree bari man na maa tëb ngir gañe waxtu yi muy Aboubacar Omar Ousmane Aliou wax naa ci ñoom lu baree baree bari talaat ibnu Ubaydillah bi xaq talxat tudd na Zubayr Zubayr ibnu al tuddee tudd na Saad ibn Abi Waqaas tudd na Saïd ibn Zayd tudd na Abdurahmaan ibn Xawf tudd na Abu Xubaydat moom moom nga xam ne bis ni tey feeñal lañ njàmbaar gu rëy ca Badar moom moo rayoon baayam Abu Xubaydat ibnul Jaraax moo dajeeg baayam al Jaraax dóor ko mu daanu ca Badar keroog lu jiitu xeex bi yàlla da leen wax na leen nag ñi ngeen war a xeexal seeni mbokki deret lañ waaye du seeni mbokk ca yàlla bëgguma nag benn xeetu cofeel ak yërmaande dox seen digganteeg moom ba mu dajeeg baayam rek la ko dóor jaasi abu xubaydata ibnul jarraax kon tudd na al asratul mubassirina bil janna foofu ci xasida googu di tuxfatu mutadarrixin bi mu tuddee al asratu mubassirina bil janna tudd na ummahatul muminina muy soxna yi ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam foofu nag ñeent rek la ci tudd ñi ca des mën nañoo yóbbaale ñi ci des bu tuddee ñeent ñi mën nañoo yóbbaale ñi ci des ca war ma ji nag foo ko takk weesu na ko bu leen tudd bi ummi naa suñu yaay bi ummi naa xadijatin hablil amal fi l ilmi wal adabi rabbi wal amal bi ummi naa aichatin xinniyama yadurru nii fi l wa sama bi ummi naa xafsata xol bayni abad wa baynama yajuru suu an wa nakar bi ummi naa zeynaba zeyin ma zahar minni wa ma batana wajaal nii wasaar tudd na soxna xadijatu mi nga xam ne ba yonent bi tudd ñeenti jigéen ñi gën ci taarixu jigéen ba muy tudd boole na ca sayidna sayidatuna xadija doy na ko sëkk ngëneel mooy jibril ñëw na fekk yonent bi ne ko sa soxna soosu di xadija suñ borom nee na nga nuyul ko ko suñ borom nee na nga nuyul ko xadija man jibril it koy nuyu suñ borom nee mi ngi bégal Khadija ne ko tabaxal na ko pale bu rëy rëy rëy ci àjjan Khadija bi mu duggee fekk yonent bi yor koogub soow jox ko dana ko ah bégal Jibril moo fi jógee léegi nee na yàlla nuyu na la mu ne est yàlla yàlla day mooy salaam mu ne ko Jibril yi nuyu na la mu ne yàlla na yàlla def salaam ci moom mu ne ko bégal na la nee na am nga pale bu rëy ci àjjan moom sayyidatuna Khadija bintu Xuwaylid yonent bi nee na ba mettee moom la woon wax na ko ba tàyyi da ko daa wax Aïsa naan ko bu leen bàyyi leen di ma tere ma di ko tudd Aïsa daa ma sa kaf ak moom ne ko del bàyyi ki ngay tudd nag faat na bu yàgg nag mu ne ko dee leen ma bàyyi ma bàyyi di ma tere ma di ko tudd ba mettee moom la woon bi mu ñëwee fat fa màkk nga xam ne ci weeru koor la woon bi ñëwee ne ko foo bëgg ñu defal la xayma yow yonent yàlla bi dane nañ dem ba ca armeel ca bàmmeelu Xadija ñu def fa xayma ba xoolal kóllëre googu nañ dem ba ca bàmmeel ba ca ngeen defal ma xayma foofu loolu fat fa la woon loolu ab liggéeyam la moom soxna Khadija sëriñ bi nee na bi ummi naa Khadijatin maa ngi ñaan ci barket suñu yaay Khadija bi ummi naa Hafsa bi ummi naa Aïcha Aïcha la ci teg Aïcha genn wàllu diina gi yëpp yonent bi nee na xusu nisfa diinakum an haasihil umayra genn wàllu diina gi yëpp mu ngi ci lu tuuti lu xong lii nii Aïcha dafa nekkoon jëmm ju tuuti gàtt ba noppi jëmm ji xong yonent bi dalaa kafa moom di ko woowee amra la daa tasxir naan ko umayra nee na genn wàllu diine gi yëpp bu ngeen ko soxlaa jëru ngeen di ñëw ci moom man ngeen yem ci moom rek lu ngeen bëgg laaj ko moom sayyidatuna Aïcha lu jiitu mu koy denc it doy na ko ngëneel lu jiitu mu koy denc doy na ko ngëneel jibril moo ñëw ci moom ci fekk ko muy muy dallu mu yor imaasu Aïcha ne ko yaa rasulallah mu ne ximeet mu ne ko haasihi sawjatu ko fi dunya wa fil janna wan ko imaasu soxna Aïcha te boobu waxagul wax yi denc soxna Aïcha mu xëy suba Aïcha ni mu nekk xale ak doomi xaritam daal am kersa wax ko sayyidina Abu Bakr ñaareelu guddi ga Jibril ñëwaat ne ko haasihi sawjatuka fi dunya wa fil janna am na kersa wax ko Abu Bakr ñetteelu guddi ga Jibril ñëwaat haasihi sawjatuka fi dunya wa ya rasulallah kii mooy sa soxna ci àdduna ak àjjana ba mu xëyee nag la ko wax fekk nag Abu Bakr ñu bare bari jot nañ faa ñëw doon ko wax mbirum soxna Aïsa ngir bëggoon ko waaye Abu Bakr am na lu newoon ca xol ba waaye ñi mu ko woon a wax muy doomam ji ni jube ni mu baaxe ni mu réyam xel ni xel mi neexe yéenewu ko kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñimewu ko woon a wax bi yonent bi ñëwee ne ko jibril daal moom dafa mel ne dafa ñëw di ko xamal ne ko Aïcha soxnaam la war a doon Aboubacar daa jooy ne ko lii rek moo ne newoon sama xol bi waaye ñimewu ko woon a wax kon bu sëñ bi tawasulee ci moom ku mat a tawasul la doy na ko sa kiit nga neel muy juróom-ñaar ñi nga xam ne ñoo ëppale luñ soloy xadis ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn jigéen moo ci am muy sayyidatuna Aïsa moo ci am muy sayyidatuna moo jël ñeenteelu place ginnaaw Abu Hurayra ak ña ca topp bi ummina Hafsa sayyidatuna Hafsa Omar mooy baayam sayyidna sayyidna Omar juuyoo mas naa am ak juuyoo ak yonent bi sallallahu alayhi ba yonent bi façon ci xolam bëgg koo yeewi Jibril moo ñëw ne ko irjih ilayha innaha sawaama innaha qawaama ya rasulallah bu ko fasi mukk yow xanaa xamoo ne kii woorkat la xanaa xamoo ne kii jullikati guddi la boo demee yëgoo ko woon kii jullikati guddi la sawaama qawaama irjih ilayha ya rasulallah yonent bi teg lépp ci suuf kaamil bii ñuy jàngee bi tasaaroo ci àddina bi yëpp fii ba àddinay tukki kaamil bu afsala woon moom la Seydina Ousmane jël photocopier ko Ousmane bi mu toogee xalifa waxoon naa léegi ne Aboubacar mushaf moo ko jëkka def bi mu noppee bàyyee ko Aboubacar Omar Omar bi mu fiy jógee biñ ko jamee ca julli ga mooy tudd Suhaybu Ruumi danaa tudd jam nga ndax moo àggale julli ga dana ñëw ci kanam bañ ko jamee ca julli ga kaamil ba doomam ja ko jox muy Hafsa Ousmane bi ñu ñëwee jàmbat ko alxuraan ju bari jeeg tasaaro geeg am na copie yu nekk Ruum ak am euh, yu nekk Basra am yu nekk kuufaak nangam nangama war nga cee wax daal ñu dajale kaamil bi mu ñëwee daa dem ci Xafsa ne ko damaa bëggoon nga jox ma nusxa bi nga yore Xafsa dana ko mukk xalaatuma ko yii kaamil bii sama waajur la jóge bu ma ko joxee mukk Sidna Omar la jóge sama Ousmane dafa giñ yàlla ne boo ma ko joxee suñ ko copier ba noppi ma envoyé yi war a dem Basra envoyé yi war dem Kuufa dama lay delloowaat kaamil bi ba gisee nag nekkii nag giñ gim giñ bu dëggu la ci moom la ko jox kaamil bi kaamil bii ñuy jàng kaamil sayyidatuna Hafsa la kon bu sëñ bi tawasulee ci moom ko mat a tawasula bi ummina Hafsata xol bay nii abad wa bay na maay jur su an wa naka ñeenteelu soxna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tawasul mooy bi ummina Zeynaba waxul nag ban Zeynab la ndax yonente bi ñaari Zeynab la yoroon yoroon na Zeynab bintu Xusayma yoroon na Zeynab bintu Jaxsin ñaari Zeynab la yoroon Zeynab bintu Xusayma mooy soxnaam si nga xam ne ginnaaw Xadija ci kanamam la faatoo Seyna bintu Xusay moom jutta yàgg ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñun dañoo yaakaar ne Seyna bintu Jaxsin la ngir ab maanaam ni mu toll ci lislaam ummul masaakin lañ ko doon dàkkantale moom moom sax danaa toog bu soxna yonent bi toogee mu ne leen yéen ñi ñëpp de kenn ku ci nekk sa baay sa bañ lay denc bañ lay fas di la jox yonent bi ci kër lañ la fasale man fawqa samaawaati wal ard lañ la fasale sama sëy muy suuratul ahsaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko wax ne ko Zayd mii na fase soxnaam si nga takk ko lu mu teg ci aay ba wa kaana amrullahi mafula ca booba ñu ngi doon wax Saydu ibnu Muhammad yëfi diis lool ci yonent bi kii nga xam ne mën nañ koy askanale mu ne leen udduxuuhum li abaihim huwa aqsatu inda allaahi dee leen ko woowee turu baayam bis ni tey bu leen ko woowee ci bu leen ko askanale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seynab moomu kon moom doy na sëkk nga ne leen ab sëyam ca juróom-ñaareelu asamaan lañ ko takk sëriñ bi tudd na ko waxoon naa léegi ca tàmbali ba ne saxaaba nag amut ay góor ak jigéen de ñun dañuy jàpp ne saxaaba góor doo nga koy doon jigéen ñi ay saxaabiyaat lañ saxaabiyaat dafa am saxaabiya da nga dégg léeg-léeg Aïcha ko borom xam-xam naan saxaabiya bintu saxaabi léegi nag sëriñ bi amaat yeneen juróom-ñaari saxaaba yoo xam ne nii moom bokkuñu ci al asratu mubashirin bil janna waaye ñu ràññeeku lañ mu tawasul ci ñoom wa bi abi xurayratin wa bi bilaal wa bi suhaybin rabbi judli bi nawaal wa taati iqbal wasfini min daai sirran wa jahran bi abi dardaay bi xurmati almiqdaadi summa xaalidi wa bi subayri awlini maqaasidi kum njëkk a foofu abu hurayra kooku moom mbiram karaama la atum juróom-ñaar ci gàddaay gi la dugg ci lislaam sana huit atum huit la dugg ci lislaam yonent bi génn euh, wuy ji boromam atum onze la yonent bi génn jam la wuy ji boromam huit ba onze ñaata at la quatre ans la fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëpple lu ci xadis soloo ci moom lu mat juróomi junniy xadis ak lu teg ñi def ak bi sallallahu alayhi wa sallam vingt-trois ans amuñu lu toll ne li Abu Hurayra am moo tax ma ne kii moom mbiram miracle la abu hurayra téere bu ubbi an abi hurayra rek ngay gis gone yi jàng moom xam naa abu hurayra booy na seeni nopp an abi hurayra moo ne ñeenti at de la fekkante yonent bi ginnaaw xaybar la dugg ci lislaam sana huit onze la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge sëriñ bi ne wa abi wa bi abi hurayra sayyidatuna bi mu wàcc liggéey dafa dénkaane woon ne bu fi jógee na ko abu hurayra jullee booba ñëpp ngi fi waaye abu hurayra la joxe ndigal bu fi jógee na ko abu hurayra jullee wa bi bilaal bilaal mooy nit ku ñuul koo xam ne ma nga woon ci seen biir yonent bi joxoon ko mu war a nodd mu di ko noddal am na ñu ñëwoon ci yonent bi ne ko bilaal am na ñu ko dàq maxaarij yow yonent yàlla bi bilaal siin mënu koo wax buy wax ashhadu asadu lay wax am na ñu ko dàq nodd mu ne leen siin gi muy wax mooy siin gi dàqal yàlla siinam gu taq googu mooy siin gi dàqal yàlla siinu bilaal huwa siinun inda allah yonent bi doon wax naan àjjana dafa namm bilaal ñun dañoo namm àjjana de waaye àjjana moo namm bilaal li yonent bi wax ci moom moom kenn xamul nu mu toll jugee na fi yonent bi jugee na fi di gisee ak bilaal di wax ak moom ba tey ndax bilaal bi fi yonent bi jógee dafa jékki-jékki mel ne kuku daanu leer daal ne mënatut a fanaan ci dëkk bi ma si mun a war gàddu bagaasam ñu wax mu ne du ma noddalati kenn ku dul yonent bi Aboubacar ñëw mu ne déedéet du ma noddalati kenn ku dul maanaam daal xolam maytu ko mu taxaw ci biir masjidu nabawi di seen rawda bee ñu ne fee lañ denc yonent bi mu jëli bagaasam dem Saam kenn xamatu ci moom dara benn guddi la la tëdd ba mu yàgg yonent bi ne ko waaye yow Bilaal raar gu mett gi ngi ñu raar lu ko waral xanaa jotatut na nga ñëw siyaare si ñu mu xëy suba nag takkaati bagaasam wuti Madinatu Munawwara keroog waa Madina ba njëgee ne Bilaal mi ngi ñëw ni doon teeroo yonent bi lañ ko doon teeroo ndax gone yi dañ doon dégg noddkatu bi bu ñuul boobu ñu ne dox Bilaal ñu taxaw ci kaw garab yi ak ci montagne yi di séentu bilaal bi mu ñëwee lim njëkk a def mooy ca rawda ba la jiit jublu rawda bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jooy fa jooy yu métt julli ci moom ñaanal ko bi mu noppee Aboubacar ne ko ah kon de xanaa tey da ñu noddal mu ne man nee naa leen du ma noddal ku dul yonente bi ñu indi Asan ak Useynu ñoom nga xam ne Asan nee nañ asbahu naasi bi rasulillahi huwa Hasan ibnu abi ibnu ali ibnu abi talib ki gën a nuróogu yonente bi ci nit ñi mooy sëtam boobu ñuy wax Xasan Xasan bi mu ñëwee xef ci kanamam mu xool xefi Xasan yi bëti Xasan yi xar kanamu Xasan taayu Xasan bi taarub Xasan bi mu ne ko doo ñu dooñu noddal Bilaal commencé yéeg nag ca kaw xel bi dem ci yonent bi bi mu jógee di nodd allahu akbar ba mu àggee ci ashadu anna muhammad rasulullah daa xëm daanu ci suuf di jooy ba nodd ga àggut wa bi abi xurayratin wa bi Bilaal sëriñ bi nee na Bilaal mi ngi tawasul ci baax ci barkeem wa bi sohayb sohayb mooy sohaybu ruumi du sohaybu nag sohaybu di saat sohaybu ruumi dégg naa borom daaru tudd ko doom daa teel a liggéey nee nañ moo sëñ xam sa ñoo bokkoon waajuru jigéen borom daaru am nam sohayb am nam hamza am nam xaalid ibnu walid am nam miqdaar aboubacar omar yu bari nee nañ am na ko am nam ousmane am nam ali aydara te nee nañ lu bari lu mu doon def ci ndigalu sëñ bi la ko doon defe kon sëñ bi jox na wàccuwaay saxaaba yi Suhayb bu Ruumi mi ki ñu njëkk dugg ci lislaam la bokk waxoon naa léegi bi ma tuddee naa Omar ne jam ga danaa ci waxaat Omar ci julli lañ ko jamee Omar kenn ñemewut a jàkkaarloog moom du ku ñuy faat moom du ku ñuy jàkkaarloog nii moom xanaa mu teewlu di julli nga koy faate ba muy julli bañ ko jamee jam yu metti ya ba jàppoo ko ba jëmee ko ci kër ga li mu njëkk wax mooy asalla naas nit ñi ba taxawuñ di ma ba julli nañ ñu ne ko waaw julli nañ kay mu ne ki ma jam baa du jullit ndax boobu sumb yi waroon a liggéeyal lislaam kii bu dee jullite yàlla du ko yërëm ñu ne ko déedéet du jullit de moom majuusi la maanaam majuusi mooy umul la si ne yaabuduuna naar ñiy jaamu sawar te ñi ëppoon dëkke woon côté Furs wala Faris mu taxawaat ba mu yàgg mu ne dama leen doon yónni ci soxna Aysa laa bëgg a yónnee ngeen waxal ma leen ko nee ko ay laxasaat yu néew moo tee a génn àdduna sayyidatuna Aysa damaa bëggoon foofu ñu denc yónnent bi ak Abu Bakar place bu ndaw boobu fa des su ma wàccee liggéey ñu denc ko booba Aysa moom it doon na fàkk foofu ak di ko defar ngir bëggoon ñu denc ko di fa julli di fa ñaan bi ndaw li dikkee ne ko Sidna Omar day daam ndog ma ko dal ci julli ga jam nañ ko jam yu métti ay laxasaat yu néew moo teem wàccu liggéey da doon sàkku nee na daa bëggoon ñu denc ko fii Aysa euh, maanaam Aysa cofeel gi ma am ci Omar ah, may naa ko place bi kon man dénkaane naa su ma wàccee liggéey nañ ma yóbbu Baqiya fa soxna yonente yi bi nekk sallallahu alayhi wa sallam biñ fi dencee Omar Aysa buy duggati léegi ca ca barab ba day muuru def ni xaabam ak lépp ñu ne ko yow fii sa néeg la di looy def nii mu ne Omar laa rus néew bi néew bi ñu denc nee na moom la rus nee na ba muy dund dama koo rusoon du fi ba napp ma di ko ñàkk a rus fa dencee rawdab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïsa saa yu fay dugg day muuru muur kanam gi def niqaab bi ñu ko fii sa borom kër ñu bàll ci kàddu gi ki la yoroon muy yàlla bu tedd sa waajur Abu Bakrin ngay solo solo gu métti gi nii gu métti gi mu ne leen damaa rus Omar bàyyi leen ma ak ni may solo julli googu bañ ca jamee sidna omar suhaybu rumi moo àggale julli ga mooy mi sëñ bi tudd fii wa bi suhaybin rabbi julli bi nawaa tudd na abu darda sirran wa jahran bi abi dardaa'i abu darda al abu darda fekke na uhud xaj na teewul badar waaye fekke na Uhud tayit ba yonent bi sallallahu alayhi di mbokkale diw ak diw diw ak diw mbokkale na diw ak diw ak diw ak diw Abu la mbokkale woon ak Salmaanul Farisi mi ngi dégg donte waxoon na ne Salmaan minna kim ci tegaat mooy bi xurmatil miqdaadi bi xurmatil miqdaadi wax naa léegi ne miqdaad miqdaad ci ñi teewoon badar ci la bokkoon saxaaba yi teewoon badar la bokkoon miqdaad gorob sayyiduna subayri la subayri ibn alxawaam nga xam ne ci kenn ci xasratu mubasirina bil janna la bokk miqdaad dafa yoroon doom ju doo soxnaam subayri ibn alxawaam moo nekkoon baayam suma xaalid xaalid ibn walid ku yéex a dugg ci lislaam la waaye njàmbaar la joo xam ne fu ñuy waxee xeex tudd ko xaswatu mu'ta la njëkk a fekk ci lislaam xare boobu la fañ wala wane loo xam ne nii la ko yonent bi nag woowee turam wu siiw woowu muy sayfullahi almaslul uhud xam ngeen ne badar uhud a ci topp bañ ne ba ñu julli de gañee ca badar dañoo joxante waat rendiw ne uhud ba at ma dellusee ba ca weeru tabaski wa ba bis ba dellusee ca lañ def uhud ñu gañee ca julli de nag nga ñaay lu méttee méttee méttee méttee méttee bokk na ci sabab bi tax ñu gañe leen Xaalid bin Walid mii fee fare woon ci côté yéefari nee nañ ci histoire musuñoo xam jays boo xam ne wala équipe boo xam ne fa la Xaalid far ñu gañe ñooña amul ci histoire Xaalid fu mu far foofaay gañe moo tax bi mu duggee ci lislaam xaswatu Mu'ta la njëkk a fekk xaswatu uta la njëkk feeñal jaloore ju rëy rëy joo xam ne yonent bi daa taxaw ci buntu Madinatu Munawwara ba mu séenee Xaalid da ne sayfullahi almaslul boobu la ko tuddee sayfullahi almaslul moom Xaalid ibn Walid wa bi Zubayr Zubayr ibn al-Xawaam ci al asratu mubasirina bil janna la bokk tuddoon nañ ko léegi ca ginnaaw mën nañ cee taxaw tuuti comme aw turam daa ñëwaat Zubayr ibn al-Xawaam moo yoroon Asma bintu Abi Bakrin mi seeru soxna Aysa mi nga xam ne moo ko Aysa ñu bokk lépp Zubayr ibn al-Xawaam mooy waajuru Xurwatu ibn Zubayr mi ngay dégg ak Abdullahi ibn Zubayr mi ngay dégg Zubayr ibnul Xawaam mii mooy seen baay Zubayr ibnul Xawaam mooy ki njëkk am doom ginnaaw gàddaay gi ki njëkk am doom ginnaaw gàddaay gi ndax yahudi dañu wax naan njabar nañ julli ni duutuñu fi jurati nañ fexe ba duñ jur rek yahudi dañu am xam-xam ñu def njabar yoo xam ne toog nañ diir bu yàgg kenn amul doom ñu naan njabar ga jàpp na njabar ga jàpp na ñu toog ba mu yàgg asma bintu abi bakri mii nga xam ne moo soxna Aysa ñoo bokk lépp am doom doom jooju mooy abdullahi ibnu zubayr mi ngay dégg asma jël jox ko soxna Aïssa Aïssa amutoon doom ak yonente bi mu jox ko Aïssa ndayale ko ko moo tax ñu naan Aïssa ummu Abdullahi bi ngay dégg Aïssa amut doom de ummu Abdullahi li ko waral mooy Abdullahi ibnu Zubayr mii nga xam ne Asma bintu Abi Bakrin mooy yaayam Zubayr ibnu Al-Xawaam di baayam moom lañ jëloon may ko soxna Aïssa xam naa waxtu jege na ca daa mel ni sax man na maa wax ne xaajalaguma sax de fatu mutadarain ba tey amaat fukki saxaaba ak juróom yoo xam ne leen tudd ci fukki bayit bi xaqi abdullahi najli l ammi ay waladi abbasi kasir ilmi bi xaqi abdullahi najli umara anik fi daban maa yajuru darara wa bibni masudin wa jaayimi salaam xini bala wa dura ayni wa kalaam ya rabbana bi xurmati al abbas wa hamsadin anik fi kulla baas bi xurmati alxasani wal xusayni judliye fi daarayni bi nuurayni bi xurmati alqaasimi summa taahiri safi sawaahiri maa damaayiri bi xurmati almiqda bi xurmati tayibi ibrahima addim alayya bisra wa takrima bi jaahi fatimata aftim nafsi an kulli ma yajuruni li xabsi wa bi ruqayata wa zeynabak fi nii a tarda wal ijaaba kulla zamani wa ammani dunia wa oxra bil karami bi ummi kalsuumin wa jannamin xam xam naa damay gaaw moom ndax dama doon def saxaaba bu mu tudd rek ma taxaw ci looloo xam naa moo yéexal waxtaan wi waaye kon léegi damay def rek damay gaaw du ma taxawati ci ñoom bi xaqi abdullahi abdullahi ibnu abbas lay waxal xabrul umma foo réew xeet bi moom la yonent bi waroon xabrul umma mooy abdullahi ibnu abbas moom la yonent bi ñaan loon ne ko allahuma faqihhu fi diin wa allimhu ta'wil yàlla nga ko déggloo diine cam xam lool ta'wil moom la sëñ bi naan bi xaqi abdullahi bi xaqi abdullahi najlil ammi ay waladi abbas mooy abdullahi ibne abbas bi xaqi abdullahi najli omara mooy abdullahi ibne omar abdullahi ibne omar ginnaaw abu hurayra mooy képp lay lu mu solo xadis wa ibni masuudin mooy abdullahi ibne masuud bëggoon naa taxaw ci moom waaye damay jàll wa jaay ibni salaam mooy abdullahi ibne salaam abdullahi ibne salaam sëtu seydina yusuf la min zurriyati seydina yusuf moom lu jiitu muy nekk muy dugg ci lislaam mi ngi tuddoon Euh, Abdullah ibnu Salaam mi lu jiitu muy dugg ci lislaam ci bannu Israil la bokkoon Abu Yusuf al Israili la tuddoon lu jiitu muy dugg ci lislaam yonent bi moo ko tuddee Abdullahi ci xabila bi ñuy wax bannoo Qaynuqaa la bokk ci sëti Seydina Yusufa yi la bokk bi xormatil Abbaasi Seydina Abbas amu rasul nga xam ne bàyyi taxam la Abbas mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi féete ko ay ak mag ci ay at ba nopp fu mu toll di toroxlu ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi dañoo mas a ñëw ci ci abbas ne ko waa yow mii anta akbar ami rasul waa abbas yaa yonent bi ku mag mu ne rasulullahi akbaru minni wa ana wulidtu qablahu yonent bi moo ma mag waaye maa ko njëkk a judd teggin yaa tax baatu mag la la ragal wax ne maa mag yonent bi loolu liñ ciy jàngate mooy war ma jum joxoon yonent bi sallallahu Seydina Hamza jaloore ji gën a rëy bis ni tey amoon Hamza moo ko moo ko wane ca Badar mooy ki njëkk rey ca Badar ñaare bi mooy ki ëpp lum rey ca Badar ñetteel bi mooy moo rey kilifa yéefar yépp ca Badar Seydina Hamza ibnu Abdul Muttalib xam eh, sa doxe kon de xam naa damay tëb xasida gi bàyyi noonu eh, bàyyi yi ci des yépp ñëw ci jaalibatu maraaxib yi nga xam ne waxoon naa ne ci laay tëje kon asmaa ahlu badrin gi nga xam ne bëggoon nañ ñu tëje ko waxtaan yi dañ koy jéggul ah asma jaalibatu da ci am lu yéeme lu ci feeñ lu yéeme yéeme lu loo xam ne mawdo bi da ci am lu ci feeñ ndax dañoo wax sëñ bi ak saxaaba yi biñ demee ci maraaxib dañ faa fekk maanaam lu yéeme yéeme yéeme ca maraaxib nit ñi dañ ko bëgg dañ ko bari ñu koy durus ku ko bëgg da nga bëgg saxaaba yi fukki bayit ak juróom-benn yoo xam ne sëñ bi tudd na ci saxaaba yi julli ci ñoom tagg leen tagg wu rëy yi man a wax yëpp ay benn yoon ngay gis de ak wala benn saxaaba 46 bayit wa alihi wa maanaam fa mu ko tudd rek damay dagg bayit ba tàmbali ba tudd sadr bayit bi rek wa alihi wa sahbihi al abraari wa alihi wa sahbihi sawi tuqaa wa alihi wa sahbihi al uduli wa alihi wa sahbihi al atbaahi wa alihi maa sihaabil muhtadin wa alihi maa sihaabil muhtadin wa alihi wa sahbihi saadaat wa alihi wa sahbihi alkumaat wal ali wa sahbi lasina basharu wa alihi wa sahbihi al ajilla wa alihi wa sahbihi al aimma wa alihi wa sahbihi al rijali wal ali wa sahbi lasina maharu wal ali wa sahbi sawi al manaqibi wal ali wa sahbi nujumi al xayri wa alihi wa sahbihi al aqyaasi wa alihi wa sahbihi al axyaari wal ali wal ashaabi ahli nuuri wal ali wal ashaabi ahli siyami wal ali wal ashaabi ahli lmajdi wa alihi wa sahbihi sumuusi wa alihi wa sahbihi almukarramin wa ali maa sihaabihi al ahbaabi wa alihi wa sahbihi sawil huda wa alihi wa sahbihi al usuudi wa alihi wa sahbihi al muhaddabin wa alihi wa sahbihi al mufaddalin wal ali wal ashaabi arbaabi nawaal wa alihi wa sahbihi sawil himam wa alihi wa sahbihi ahli sabqi wa alihi wa sahbihi al abtaali wa alihi wa sahbihi sawi sawi al buruu wa alihi wa sahbihi al ansaari wa alihi wa sahbihi al muhaajiriin wa alihi wa sahbihi al aalaami wal aali wa sahbi sawi al wafaaqi wa alihi maa sahaabi al qiyara wa alihi maa sahaabi al kumara wal aali wal ashaabi ahli al istifaa wal aali wa sahbi sawi saqaayi wal ali wa sahbi sawi lqitaali wal ali wal ashaabi ahli sabri wal ali wa sahbi sawi tawarruci wal ali wa sahbi sawi lataaya wa alihi wa sahbihi lixwaani wal ali wa sahbi sawi lmanaafihi wal ali wa sahbi sawi lmasaakili yaa man kafaaniya makru kulli maakiri kii fi mu tegoon saxaaba yi fii la maraaxib ci tàmbali bi fukki xasida laa waxoon daa mel ne daanaka sax tëb naa yu bare baree baree baree baree bëri bu dee benn minute may nañu ko man laal ci badar rek ak sëriñ bi bu fekkee waxtu yu jot na it ñu yam foofu rek insha allah euh, am na xasida gu ñuy wax asmaau ahli badrin xasida gu yéeme borom xam-xam yi dañ daa wax naan bu njëkk ca jamono yu njëkk yi mag buñ masa am soxla dañuy bàyyi ba guddi badar ñu tudd 313 yi ñaan seen soxla mu am waa Màkka mas nañ koo def bis boo xam ne ni dafa gëj a taw bu yàgg yàgg yàgg yàgg ñu teg 313 yi de woon Badar tudd seen i tur ba ñu xëyee mu taw ba wala ngaan sëñ Tuba am na xasida goo xam ne da ko nazmu asmaa u ahli badrin way leen ci wayin woo xam ne nii moom lii moom kenn xamul lu mu doon rek masalan da koo tartib tartib goo xam ne alif ba taa maanaam ah, a ba ta sa noonu la ko defee hamza mu xool saxaaba yi am seen tur tàmbalee hamza yëpp ba saxaaba yi tàmbalee ba yëpp ta saxaaba yi tàmbalee ta yëpp xuruf yi noonu la ko def masalan ci xarfu hamza ba mu tuddee xulafaa al arbaa ba pare xarfu hamza tudd na fa fukki saxaaba ak benn xarfu ba tudd na fa juróom-ñaari saxaaba xarfu ta tudd na fa ñetti saxaaba xarfu saa tudd na fa juróom-ñeenti saxaaba xarfu jiim tudd na fa ñeenti saxaaba tudd na fa ñaar fukki saxaaba ak juróom-benn xarfu xaa tudd na fa 18 saxaaba xarfu zaal tudd na fa ñaari saxaaba xarfu raa tudd na fa fukki saxaaba xarfu zaay tudd na fa juróom-ñeenti saxaaba xarfu taa tudd na fa ñetti saxaaba xarfu saa tudd na fa benn saxaaba xarfu kaaf tudd na fa ñaari saxaaba xarfu miim tudd na fa 45 saxaaba xarfu nuun tudd na fa juróom-ñetti saxaaba xarfu saad tudd na fa ñaari saxaaba xarfu daad tudd na fa ñetti saxaaba xarful ayin tudd na fa 75 saxaaba xarful xëyin tudd na fa benn saxaaba xarfu faa tudd na fa ñaari saxaaba xarfu xaaf tudd na fa juróom-ñaari saxaaba xarfu siin tudd na fa fanweeri saxaaba ak juróom benn xarfu siin tudd na fa ñaari saxaaba xarfu ha tudd na fa benn saxaaba xarfu waaw tudd na fa ñetti saxaaba xarfu yaa tudd na fa ñeenti saxaaba xarfu ñi nga xam ne nag ay amuñu xuruf waaye ay ay kinaaya lañ am mu tudd fa fanweer ñoom ñëpp a ngoog waa bada ci génn xasida goo xam ne nii da caa tagg tag yu rëy rëy rëy tagg yee nag mu ñaan boromam nag ne ko damaa na nga boole ma ci ñoom bokk na ci geneen xasida ko xam ne waj'alni yawma bihi ka sa'bi takarruman wajsub ilayka bi maa ngi lay ñaan nga boole ma ca ñe demoon badar arju bi xidmatihi gis nga xidma gii ma koy xidmaat li ma ciy yaakaar kaw nii ona wa xadan inda al muqaddimi misla sa'bi man karimu bu ëllëgee ma bokk comme saxaaba yi bi ko ko suñ borom mayee nag wax na ko ci xasida yu bari bi may wàññi sa xasida yi nga xam ne jërëjëf bi may wàññi xasaayid yi nga xam ne sëñ bi da caa leeral ne bokk na ci waa badar bayit yi bi ma koy wàññi damaa wàññi ba mu yàgg ma bàyyi fukk ak nangam bayit yoo xam ne nii yëpp da caa leeral ne bokk na ci waa badar sahidallahu bi anni waahidun suñ borom seere na ne man mii kenn laa min ahli badrin wa ma kafaani wa man naa ani jaahid suñ borom seere na ne man mii ci waa badar laa bokk basharanillahu yàlla bégal na ma bi anni waahidun bis bi amoon bis ni tey 313 doon ko xeex malaayika yi bokk ca saxaaba ya bokk ca suñu borom bégal na ma ne ma man ca laa bokk min ahli badrin man ca waa badar yooyu laa bokk waa badar yooyu dañ ci daa ñëw waxtu wu ne di jaabante di ko seet badar yooyu feeñ nañ ci tukki bi ay yooni yoon wax na ko na ci jeewal feeñ na ci tukki géej gi ay yooni yoon fekk nañ ko ci ay barab ay yooni yoon daa nañ ko laaj sax naan ko ñii ñëw ñan lañ tubaab bi mas nañ ko ko laaj ne ko yow ñu lay feeñu ñu doon sëñ Basiiru nettali na nee na muy muy muuñ naan ko ñooñu nu mu demee noonu mu naan ko dafa mel na daal saa yuñ demee ba ba nga xam ne jekku nañ la rek day am luy feeñu loo xam ne dañuy tiitloo sëñ bi bi mu nett la ne ñooñu waa Badar lañ biñ koy laaj dañ ne ko waaye sëriñ bi ñooñu saxaaba yi demoon Badar lañ wala malaayika yi ne malaayika yi lañ xam nga malaayika nañ Badar istastaxiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdafin suñu borom moo wax yonente bi ne ko yaa ngi doon sàkku ndimbal ci bisu Badar bi yoo xam ne dañoo ñëw junniy malaayika junniy malaayika yooyu dañ doon ñëw di seet si sëñ bi moom la sañ bi bañ ko laajee na ko saxaaba yi la wala malaayika yi lañ mu ne malaayika yi lañ ñu ne ko yonent bi ca la bokkoon mu ne moo leen jiite woon sallallahu alayhi wa sallam xaddani al baaqi min ahli badrin bi mawlidi al muxtaari aali al qadri suñ borom boole na ma ci waa ahlu badrin kon ñoo ngi ndorteel sëriñ bi nga xam ne ci waa badar la bokkoon bisub tey bii di bisu badar wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Mourtada Sylla ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne solos waxtaan wi moo tax ni nga ko waxee ci mujj gi rek tomb yi nga xam ne ci nga bëggoon a tënk waxtaan wi tolloon ci juróom-benn yaakaar naa ci ñaareelu tomb bi rek ci nga tolloon mu mel ni kon waxtaan wi xaaj sax defu ko xëy na waxtu wi moo xat eh, ak itam eh, lim indi doon loo xam ne solos yi foo ko takk weesu ko moo tax xajul ci jotaay yu gàtt nii ba tax na ñoo ngi koy sant bu baax ci turu daairatu muxaddamatul xidma di ko ñaanal sunu boroom dolli ab xam-xamam te guddal aw fanam te wéral ko xam naa taaliqaat yi euh, daanaka moom du ko jar ndax waxtu yi jot na ba noppi boole ci itam euh, tomb yi mu indi ci waxtaan wi leer na jot na jot goo xam ne daanaka di ca sof laneen mën na ko gën a lëntal wala mu gën ko lëndëmal kon dañ koy sant rek te di ko ñaanal suñu borom dolli ko sàmm te ko te dolli ab xam-xamam bu ko defee itam ñoo ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo yaatal waxtaan wi ci jumtuwaay yi tàmbale ko ci GM GMT euh, di euh, seen bi nga xam ne waa Muxaddamatul Xidma ñoo ko moom di jàllale jotaay bi naka noonu itam mbooleem rajo yi ak télévision yi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ak mbooleem jumtuwaay yi nga xam ne ci internet bi la ñu di ko jàllale ci jamono bu nekk ñii di ko def en direct ñii di ko jàllalewaat muy gën a yaatu ñoo ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax a baax bu ko defee itam di xam le ne waxtaan wi suba incha allah ñi ngi waxtaanee tomb boo xam ne bu am solo la di alxifaaz ala ala daruriyatil xams fi l islam ki nga xam ne moo ko war a waxtaanee mooy sëriñ Abdul Xaadir Buso Alxaaji Cheikh incha allah ñoo ngi leen di dox rendez-vous suba ci waxtu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.